nuyu nañ leen bu baax di leen ziar yéen ñi safoo Dakar Buzz TV ñu ngi fii nag ci hôpital Dantec toog ak kenn rek ci mbokku Ibrahima Seck yi rek di frère di di du sekk mi nga xam ne dañ ko fekk ci plage yu Yoff bi rek mu daal di faatu ñu ñëwoon rek waxtaan ak famille am xool ci ban anam la lañ ko gëjee gis ak ci ban anam lañ ko fekkee rek mu faatu ñu gën ci am ay leeral nuyu nañ la bu baax di la ziar. maa kañ ngeen toog gisoo leen ko. Euh, le lundi lañ ko remarqué. le lundi après midi. après ñu dem këram seeti ko si lañ fekk téléphone am foofu noonu ak tous ces objets donc ñu xam ne que y avait quelque chose qui se ñu ngi ko doon seet. yàlla dem la dogal ñu gis ko si circonstances yi ñëpp xam. da doon dund ak jabaram wala famille. non non amoon jabar amoon jabar amoon doom. ah il vivait seul. non parce que moom moo am na am na ku mu dëkkaloon je ne dirais pas da doon euh, am na kenn ku mu nekkaloon ci kër gi mu nekkoon sama kër mag sax la nekkoon donc il peut pas boo ñu doon ñëwaatal ci sa ci sa frère kan la doonoon ban genre nit. ah c'était une personne normale très calme gay et puis ku bëri woon jàmm mosuma ko xam problème ak kii que ce soit quand même donc euh, moo tax ça a été très étrange. Mm-hmm. bi lii amee te masuñ ko gis aussi mu jékki-jékki nii rek après disparaître noonu pour quelque temps ñu koy seet noonu masul am c'était la première fois malheureusement nii la mujjee daal. lan la doon liggéey. Jumia la doon liggéey. fa la nekkoon si logistique bi. fa la nekkoon. ba amul woon ay xarit ay fréquentation ñoo xamante ne rek euh, dañ ko doon seet si si këram. non man xaw ma leen ah, de toute façon ay fréquentation sax je me est-ce que du ñun parce que ñun kese ñoo entre ses frères ak yenn amis d'enfance yoo xam ni depuis biñ nekkee booy ak ñeneen ñoo xam ne depuis l'université mais xamee ma ko woon des mauvaises fréquentations quand même. Mm-hmm. bi ngeen toogee gisoo leen ko ba ngeen ñëwee ci immeuble bi fii mu dëkk laaj ngeen ay dëkkandoowam ba xam gis nañ ko. non on n'a pas demandé laajuñu ay dëkkandoom et tout parce qu'on les connaissait pas tamit. Mm-hmm. mais ñoom si boppam à chaque instant bu ñu fa daan jaaraat di xoolaat. il s'inquiétait quand même à chaque instant dañu doon demande ndax gis ngeen Ibrahima xam nga ce qui veut dire que ils avaient très bon rapport ak ñi mu dëkkaloon noonu à côté quand même waaw. doon liggéeyee tamit. fi mu doon liggéey ma je les connais pas trop quand même je sais pas quel yar rapport yi nga xam ne moom la am ak ñi mu doon liggéeyal quand même parce que loolu c'est son milieu professionnel donc euh, je sais pas je connais pas ses collègues et foofu la dëkkoon. waaw Yoff la dëkkoon. kañ ngeen ko fekk ci parce que nee nañ otoom ngeen njëkk gis. waaw oto bi lañ njëkk a gis le lundi le lundi après midi vers quelque chose comme 19 heures quelque chose comme ça mm-hmm. bi ñu oto bi nag si lañ xam ne que ni kon y avait quelque chose qui se passait parce que mm-hmm. bi ci place bi ngeen ko fekk. Mm-hmm. léegi après kañ ngeen gis corps bi. hier nuit vers zéro heure quelque chose comme ça. si lañ ko gis. Euh, ci place bi ngeen ko fekk. ci ban anam ngeen ko fekkee dañ ko jam dañ ko. ba ça je ne peux pas le dire ah je n'ai pas vu donc du coup loolu nañ bàyyi après l'enquête en dira quelque chose s'il y a lieu fekkente ne am xamuñ quelles ont été les circonstances on ne peut pas s'avancer sur ça donc mënuñ say wax dara loo xam ni wóor nañu instant bii nii quand même. Hmm. ci otoom fekkoo leen fa dara luy firndeel ni dafa def choc. non non absolument pas oto bi mu ngi fi oto bi mu ngi fi ñu garé man maa ko sama oto sax en réalité. Hmm. c'était mon véhicule. donc oto baa ngi fii nii donc oto bi amul choc amul dara y' a infraction si oto bi aucune pièce manqué wul. Mhm. dañ ko gis foofu woo leen wala yéen rek yéen dem ci. oo ñu dañ ñu oo. Mhm. après ñu ñëw fa. après bi ngeen ñëwee a woo sapeur wala man dañ ma woo si yoon bi boobu pare naa bay ñibbi. Mhm. ñu oo ma ma retourné waat après dem seeti si laa dem fee ne fi fi corps bi nekkoon à pompier yi ñu def consultation yi li ci ngeen ñëwee fii nii Dantec. ouais. ses parents. bah ils sont à la maison ils vont bien ñu ngi koy jéem a supporter ñoom à leur manière. Mhm. donc euh, yàlla baax na. Mm. yéen ngi xaar autopsie dara génnagul. waaw moom la ñuy xaar actuellement incha allah yàlla baax na. lan ngeen di ñaan rek ñi nga xam ne ñoo yor sécurité réew mi. Euh, que qu'ils soient beaucoup plus euh, regardants et puis moi je pense qu'ils font le travail. Mhm. on peut pas les incriminer parce que ya lii am na mais quand même que chacun ku ñun ñëpp euh, au premier chef ku gën a jël say matuwaay pour euh, gën a gën a gën sa bopp daal. am na solo am internet Dakar mu ngi noonu rek frère am lañ fekk fële ca euh, plage yu Yoff mu daal di ñàkk bakkanam nag instant bi nag autopsie la ñuy xaar xool lekk ci ban anam la faatoo ay leeral nag dinañ leen ko indil nag à travers Dakar Buzz rek ñu ñu jéem a xaar enquête bi incha allah merci beaucoup.